des dispositions de l'article 111, alinéa 2 pour son droit de réponse. Chers collègues, laissez-le prendre la parole. C'est son droit le plus absolu. Voilà. gens ont boudé pensant que bu ñu fi nekkul du ma wax je vais prendre la parole pour dire ceci au Sénégalais parce que ce qui nous intéresse mooy comme li le président Ousmane Sonko waxoon ce n'est pas cette majorité transparente là qui quitte la salle mais ce qui nous intéresse c'est de parler aux Sénégalais parce que nous sommes des élus du peuple li ñu gëm xam ko te yàgg ko wax l'histoire nous donne raison aujourd'hui l'histoire nous donne aujourd'hui parce que tey quoi qu'on puisse dire je l'ai dit tout à l'heure nous n'avons jamais été contre les candidatures de qui que ce soit le président Ousmane Sonko moom gàcce ngaalama il s'est toujours battu pour que tout le monde soit candidat mais le candidat le plus pollué fii au Sénégal ñëpp xam nañ ko c'est le président Ousmane Sonko ñëpp gis nañu comment la justice a été utilisée pour éliminer le président Ousmane Sonko tout le monde en est témoin deux mois trois mois de procédure fast track pour l'empêcher d'être candidat jusqu'au Conseil constitutionnel ça tous les Sénégalais le disent et c'est avec le président Ousmane Sonko même que les Sénégalais même connaissent maintenant les procédures judiciaires xam nañu luy mandat de dépôt xam nañu luy main levée xam nañu luy liberté xam nañu luy appel xam nañu Cour suprême xam nañu euh, Conseil constitutionnel donc ça c'est pas nouveau nous ne sommes pas contre la candidature de qui que ce soit loolu il faut que mu leer mais nag am nañu droit wax sénégalais yi ñu xam ne ce qui est en train de se tramer n'est pas de la responsabilité de l'opposition qui est Yewwi Askan Wi nañ ko xam tout ce qui se passera maintenant sera de la responsabilité de certains hommes politiques qui ont préféré comme d'habitude utiliser les détours les contournements les manipulations politiques pour arriver à fin mais lii kenn mënul fexe laa la wax kenn mënul fexe à moins qu'il y ait un coup d'état institutionnel loolu nag dañ leen di bàyyi seen mais kenn mënul fexe ba élection du am incha allah le vingt 25 février 2015 borom Cap Manuel nag le grand stratège après Abdoulaye Wade man j'accepte que après Abdoulaye Wade le plus grand homme politique du Sénégal mooy borom Cap Manuel borom sikkim bu jekk bi nga xam ne lu mu wax mu am gannaaw yàlla incha le 25 février 2024 dinañ jël réew mi teg ko ci loxoom mu teg ko ci loxo la président Diomaye Faye jërëjëf merci. merci cher